Euh, état moom amul benn intéret nekk euh, di def euh, bras de fer avec hmm. avec le secteur privé suma ban intérêt la ci am parce que au fond il suffit que le secteur privé vraiment mu def un bloc que état bi échoué hmm. parce que population bi nga xamante ne moom la état bi di défendre et population boobu bu nekkee dans une situation de pénurie du ko mën a supporter te day dressé wu contre l'état te mu l'état donc l'état son mhm. intérêt l'état doit être en partenariat avec le secteur privé. ñu waxtaan nga bëgg dañu war a di waxtaan mhm. dañu war a di avancer la mais dans la main. Mhm. parce que nous avons besoin du secteur privé. état li muy am am doole yëpp du moom mooy importer ay denrées. ay nit ay jël seen xaalis jël le risque dem importer ñëw jaay sur le marché. ñoom ñoo xam lu ñuy subir ñoom ñoo xam lu ñuy perte. c'est il est évident que dañu war a tenir compte ci bourse bi bourse bi nga xamante ne moom la euh, population bi am mhm. te ñoom tamit bu fekkente ne prix yi tolluwul ci yenn niveau yi euh, bu cherulee jënd bi dafay gën a gaaw donc ñoom seen euh, seen produit bi day gën a day day gën a di circuler mhm. alors bu fekkee dafa cher day wàññeeku mais il faut que ñu trouver la juste mesure meunier yi nag pour dire la vérité ison ont été très éprouvés Mmh. Ils ont été très éprouvés depuis toutes ces années avec la d'abord la guerre en Ukraine. État ouais. bi li mu leen doon bëgg a sub ne dafay supporter la subvention fay du leen ko fay nu mu gaawee comme ñoom ñu koy soxla donc il faut que l'État aussi tienne compte de tout ça. Mmh. au niveau international booy fixer kay prix bul il faut aussi tenir compte du contexte mondial. parce que bu fekkente ne le contexte mondial dafa commencé di cours yi dafa commencé di yéeg. yow ngay baisser prix xam nga du du ànd loolu bokk na ci li nga xamante ne ñun arrivé woon nañu il mhm. ndax dañoo fixé dañu jël mesure de baisse alors que euh, la la Russie avait déclaré la guerre à l'Ukraine ouais. mm -hmm. logiquement mënutoon mënutoon nekk mhm, mhm. mais xam nga parfois le politique Euh, ces décisions ne sont pas très très rationnelles parce que du du jël en compte euh, parfois certains éléments techniques. Ah,